asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi ñu safoo si 313 digital ñu ngi leen di waat bu baax a baax di wax ne leen dal leen ak jàmm dañu daal di ñëw ci waa Sénat ñi nga xam ne ñoom les avocats d'Ousmane Sonko. Euh, daal di euh, saisir ku ne xam ne ne Ousmane Sonko jamono ji nag ma nga ca front bu nekk rek rien que rek pour mu daal di am wala rek pour ñu daal di appliquer euh, décision bi nga xam ne tribunal d'instance de Ziguinchor daal dina koy jël daal di dugalaat Ousmane Sonko ci liste électorale waaye daal di sàkku askan rek daal di koy jox li nga xam ne moom mooy ay fiche de parrainage ku ne xam ne ne aussi l'agent judiciaire de l'État ñoom nag dañoo daal di saisir la cour suprême pour rien rek pour annuler décision bi nga xam ne juge Sabassy Faye yi daal dina koy jël moo waral tamit les avocats d'Ousmane Sonko daal di interpeller la commission électorale nationale autonome maanaam Sénat ngir rek ñu mën a dugalaat Ousmane Sonko ci fichier électoral waaye tamit ngir waa DGE daal di koy jox li nga xam ne moom mooy ay euh, fiche de parrainage ndax ci fàttali rek euh, moom Ayib Daffé dem na fa deux fois ginnaaw ba décision wala ginnaaw ba ordonnance bi daal di euh, génne juge si Faye daal di koy génne ngir xamle que ne waraloon Ayib Daffé mandataire Ousmane Sonko demoon foofu noonu ca direction générale des élections ngir jël li nga xam ne moom mooy ay fiche Ousmane Sonko ba mu demee dañ ko euh, euh, ko recevoir deuxième fois bi nag euh, lañ demee tamit amul li nga xam ne moom mooy accès moom ak ki nga xam mooy huissier bi mu àndaloon par la suite nag la waa DG daal di génne ab communiqué daal di xamle que ni kat recours ba nga xam ne les avocats de l'État prévoir nañ dugal ko moo waral ngi ci liste bi ba tax na mënuñu koo jox li nga xam ni moom mooy ay euh, fiche de parrainage ca boobule jamono nag ci la les avocats d'Ousmane Sonko daal di saisiré daal di euh, li nga xam ne moom mooy la Sénat ngir mu daal di addu jëm ci euh, boobule mbir parce que jàpp nañ ne jamono ji nag moom moo leen mën a àttee ginnaaw ba Cour suprême daal di daal di gàntale requête bi nga xam ne Ousmane Sonko wala les avocats daal dinañ koy dugal ca boobule mbir waaye nag d'après source am mi nga xamal que la Sénat dina daal di addu woon na ci mbir moobile ndiki euh, mercredi 25 octobre waaye nag jamono ji la mu compté def rek mooy que bëgg na ci euh, prononcé bëgg na ci wax avant euh, prochaine assemblée générale bi nga xam ne dinañ ko daal di amal ndiki semaine prochaine balaa loolu lee dinañ daal di àddu jëm ci la nga xam ne les avocats d'Ousmane Sonko dugaloon nañ ko ngir rek Sénat daal di leen di àtte ci boobile mbir moom Sénat nag jamono ji ma ngi ca mbir yooyu lee di ci daal di xool ana lay def waaye tamit ana nan lay àttewee aussi les avocats Ousmane Sonko ak les avocats de l'État du Sénégal ba tax na rek la Sénat mi nga xamle que ne lépp rek lu ci mënti am mooy que dina daal di yónnee réponse am ñi nga xam ñooy les avocats d'Ousmane Sonko waaye tamit euh, direction générale des élections DGO aussi tamit dina jot li nga xam ne moom mooy euh, réponse am te boobu li mbir euh, mën nañ koo xaarandi di ki semaine prochaine dina daal di génn ñu xam ne Sénat fa lay daal di tëddi ak Sénat exact kan la jox li nga xam ne moom mooy dëgg est-ce dafay dëggal la nga xam ne juge Sabassy Faye daal dina koy wax ne kat nañ dellu Ousmane Sonko li nga xam ne moom mooy ay fiche de parrainage wala DG wala ne rek DG daal dina koy wax ne day xaarandi boobu la décision n'est pas encore définitive léegi nag Sénat moo nekk attekaay bi attekat bi nga xam ne moom moo a a ak l'État du Sénégal buñ jógee foofu dañuy daal dem ci mbirum Fall Fleur nekk ab militante Ousmane Sonko militante parti boobu di Pastef moom nag faalëf la ginnaaw ba ko jàppee ni ki mois de juin ndiki tey nag wala ndiki le 12 octobre bañ ko jugé moom jàkkaarloo yeeg ak juge bi ndiki tey nag la verdict bi daal di génn verdict bi nag ba mu génnee moom Ndeye faatu Fall alliance Fall Fleur lañ koy toppee nag bokk na ci acte de nature à compromettre la sécurité publique et les lois du pays provocation directe à un attroupement non armé et non suivi euh, d'effet moom daal ci mbirum violence Euh, moom Falla Fleur moom mi lii ndiki nag lañ ko daal di condamné à trois mois euh, à mois lañ ko daal à trois mois de prison ferme lañ ko daal di condamné moom Falla Fleur waaye nag boobi les peines euh, daal dina koy purgé ndax moom Falla Fleur ndiki mois de juin lañ ko tegoon loxo kon trois mois mën naa ne tëdd na ko ba pare waaye nag n'empêche trois mois yi na ko ba pare wala tëdd na lépp sax trois mois moom Falla Fleur moom mi waaye nag moom dafay daal di desandi ca boobi li prison la ko waral nag mooy que dafa amaat ab mandat de dépôt euh, bu yees ndiki 25 euh, octobre euh, passé lañ koy toppee nag bokkul na ca dafa daal di divulguer li nga xam ne moom mooy ay information jëm ci jëm ci l' administration pénitentiaire loolu nag moo tax faalaf la ñu daal di koy tegaat loxo wala daal di koy defaat li nga xam ne moom mooy mandat de dépôt te ca boobule jamono ma nga doon xaarandi verdict bi ndikki tey amaana loolu yëpp bu ci amuloon kon faalaf la tey këram lay daal di nekk waaye nag accusation yi nga xam daal nañ ko koy defal ndiki juju wala mandat dépôt bi nga xam ne nit ki 25 octobre daal dina koy am moo waral nag moom Falla Fleur ba léegi dafay daal di desandi ca boobu li euh, prison mais nag 30 euh, octobre euh, bii di ñëw lañ koy daal di waat ngir ñu mën a xam exact ba xam Falla Fleur dafay ñibbi këram wala dafay amaat beneen peine boo xam ne rek daf koy daal di tëddaat ci information yi nga xam ne ñu ngi ñuy wax que ne daf koo daal di génne jëm ci administration pénitentiaire fii la ñuy daal di wàcce weesu njoy kàddu di leen jaajëfal bu baax a baax di leen joxaat dig daje ndikki ci kanam tuuti ak yeneen yeneen i information waaye nag bu leen fàtte à chaque fois di abonné sur 313 digital